genre mirage la xam ngeen mirage fan genre mirage la da ngay mel ni nga taxaw gis tali bu nekk ne le fële nga foog ne ndox la nooy gën a demee muy gën a dem loolu mooy fen doo ko mus a dot day mel ni ndox da ngay da ngay xool tali bi mu tàng ñuy voyage xam nañ tali nga xool fële nga naan ndox saa yuy dem doo gis ndox loolu mooy fen ñoom ci loolu la ñuy dund fen rek la ñuy dund ay fen moo tax ma gëm ne maa leen di mun ba deux mille vingt quatre te maa leen fiy jëlee. maa leen di mën ci saayir mën leen ci baatin ba deux mille vingt quatre ma jëlee leen fi calmement te coow di jib bal du suuf di yëngu incha allah avec le peuple sénégalais intègre digne moo tax man ragaluma ku may fenal wala ku may sosal ñoom seen ñëpp ay fenkat la bu dee baajaxate fenkat la mati trois pom fenkat la aji saar fenkat la adduna yëpp ko xama euh, euh, kii kii Aysata Duul Faal fen Aysata Doxat Faal fenkat la euh, Suzanne fen Camara fenkat la Hélène Gaye fenkat ñoom amuñu ku dëggu ñëpp ci ñoom ay fenkat lañ boo leen jëkkoo de pare nañ pour sosal la <laughs> gis na ñu préparer barki démb ku melni ni jaxate nga xam adduna bi do ko fen ba fen ba ba neewi ba fen ba xasaw ba fen ba bleu mom vertul dafa bleu ba jaxate ñu bari ku ba jaxate am nañu ko xamul sax xam nga mola moom gemmi gi dafa barkel yalla ko def bu waxe ñep dañuy bàyyi xel mu def ben préparer nee ye yee nee na def nee def may kalif fon kat la amuñu ko bax Baye Jaxate nee na moom xam na ma quoi mais maa gis benn texte bu mu dugal ci internet bi ma Matar la Kagulaar fenkat la mu ngi koy déglu ku leen di àndal ku dëggu barke alxuraan kenn billahi wallahi wataalaahi amul ku ànd ak Macky ku ku dëggu ay fenkat lañ Matar la Kagulaar ku mun a fen la ku mun a fen doon na ma fi menacé waaw oh, waaw ba dem benn vidéo jox xam moom dafa xaw a feebar nag dafa xaw a feebar man sama gaañ la woon nooy dama ko xam nag dafa feebar dafa yàgg ci kaaw bi amul këyit amul dara toog fii dakinse nekk ci camion xam nga tipsé Matar dafa tipsé chaque jour doon naa ko wax ay mbokkam doo leen ko jël si Matar moom <laughs> te mun na fa def dix mille ans Matar du am këyit fan nu mu duggee la nu mu duggee empreinte bu mu duggee Amérique ci tuuru jàmbur la ko duggee tuuru jàmbur la duggee am na fay doom am na fa jabar am ba léegi amul këyit du fa musa am këyit bu dee rek moo ko fay jëlee ñu génne ko yóbbu ko Sénégal yàlla na yeex dara bu takkoon doomu président sax mënu am kayit ndax nu mu fa duggee maam Ngor Jazaaka fenkat la tan tanjan fenkat la ñoom ñu ay duurkat lañ moo tax ñu ñoo leen di mën ci lu ne lu ñu def mu siw ñoom lu ñu def mu suulu ñëpp xam ne ay fen muy xeeñ ay fen bokkul <laughs> bokkul ba jaxate créé benn paasam xaw ma lan dëgg ba jaxate daal xëy na rek xamul sax sama tur papa nag ne wala moor di Mamadou tudd ma Mamadou Muhammadu laa Muhammadu mooy sama moom lañ toqal fii Muhammadu Ñas laa tudd tudd ma Mamadou xamul sama papa de mu ne son père a été euh, travailleur a la Sénélec am na ñetti doomu biiral euh, sa mère aussi ñu naan ko nday Dakar lu tax nday Dakar day jaabante diggante Dakar ak Kaolack moo tax ñu ne ko day Dakar ci yoon boobu sax am na ci ñetti doom am na ci sax benn mitis bu nekk Thiès man xoolal ay cré yoo xam ne doo <laughs> am ñu mën amuñu vergogne dañuy fen c'est pathologique dañuy fen comme ñu feebar barki laa ilaha illallah fen yoo xam ne duñ du bu fen doon rey ak ñii ñëpp dee nañ moo tax yàlla yal yàlla def fen ku fen dee <laughs> kon dëkk bi dana calme kon de genre yi nii laay dee nekk Dakar fu fépp di taxawaalu ku fen dee waaye yàlla yàlla def loolu waaye ku fen dee kon Bah Diakhaté Fatou na bu yàgg mun a fen xamul ba léegi xam sama turu papa de son père son père nee na xam na ma de Mollah Morgun est un doomu biiral son père kuy sama père amna trois dom yu yu biiral sa mère mère bi tu nday Dakar kan, kan nan la nit di tuddee nday Dakar nday Dakar sa mère da ron jaabante Dakar kaw am amna fa ñetti dom yu bokul amna fa sax doomu mitis mi ngi mi ngi ties <laughs> Mamadou ñass man hi hi amna ñu feebar de <laughs> no amna ñu amul ben zargoñ ñuy fenn comme comme ñu comme comme ay extraterrestre comme ñu wàccee ci asamaan ñu wàcce rek ñuy fen rek fen rek di fen rek non bu ma liireel damaa ree ree ree ba léegi waxul sama tur papa ba léegi waxul sama tur yaay jox na sama papa ñett doom jox sama yaay ñetti doom <laughs> ñetti ku ci nekk am nga ñett de ku ci nekk am nga ñett <laughs> ma ne ko ñun ay wëliw lañ Mouhamadou Niass laa tudd samay juróom-ñaari maam yi sëriñ lañ ñu bokk ci Baye Niass sama maam nekkoon maanaam frère baay Niass la leen yóbbu la leen yóbbu euh, Saalum la leen jëlee Saalum yóbbu leen Jurbel sëriñ Touba moo fekkoon sama maam bokkoon ñu daq bind alxuraan sëriñ Tuubaa jóge poroxaan moo fekk sama maam muy jàngale alxuraan mu toogam ne ko est-ce mun nga maa gunge sama maam ne waaw sëriñ Tuubaa ànd ak sama maam ba Jurbel muy àll mu ne ko toogal fii nga jàngale fii sama maam xool goos muy àll mu xool droite muy àll mu xool fépp muy àll mais mu am confiance ci suñu ci sëriñ Tuubaa mii xam ni kii wëliw la mu ne ko toogal fii nga jàngale alxuraan tey suñu kër Jurbel boobu bokk na ci kër yu gën a rëy mu ngi nekk ci raay ba juste ci ci gaa ci raay ba raay ba après raay ba passage à niveau koñ ba koñ la àll boobu yëpp Serigne Touba fa bàyyi woon sama maam muy jàngale alxuraan adduna yëpp dajeeg moom ñëpp dajeeg moom kër googu tey moom la samay maam donnu kër mun te mun nga fa def terrain footbal juste après raay ba ñëpp xam sama maam kooku mooy sama maam loolu moo ñu booleeg Touba Mbàkke googu ñu yàgg ñu yàgg Jurbel googu ñu yàgg yàgg ak murit yàgg ak murit moo ñu yóbbu ci loolu ba ñu dem ba nekk murit ñu ñun ay descendant wu Baay Ñas lañ direct ma ne la sama baay ñëpp ay doom yu góor la am amul jigéen man Mohammed laa tudd ku topp ci man tudd Yuusufa muy yenentu ku topp ci Yuusufa mi ngi tudd xaadimal Moustapha Mouhamadou Bamba Niass ku topp ci mu Mouhamadou Bamba Niass muy Idrissa Niass yonent ku topp ci Idri ku topp ci Idrissa Niass muy Souleymane muy yonent yàlla Souleymane ku topp ci Souleymane moom mooy caat bi moom mooy Mouhamed mu tuddeewaat ko Mouhamed sama baay ñëpp ay yonent la leen tuddee juróomi doom yu góor ñëpp yonent ñu xam leen ci jullite. musoo gis samay frère yi taxawaalu nii di wax musoo gis samay frère yi taxawaalu nii di wax musoo ki samay sœur yi taxawaalu ñu jàpp ne kii sœuru Mollah la wala kii nangam ak nangam sama baay ñu xam ko ci jullite ak maanute ñëpp seedal ko ko sama ndey ñëpp xam ko ci jullite ak maanute ñëpp xam ñu ay wëliw xàqan ma génn ci ñoom doon révolutionnaire bañkat di tegu ci dëgg nga taxaw fee ak say fen di sosalaate motax man yeguma ko parce que mom mamadou ñass lay wax te waxul père waxul mère sama bay yor turup yonent momit Muhammadul Lamin, tuddu Muhammadul Lamin, ñass sama bay sama yaay tuddu fatumata bintu yaangi deg de sama bay Muhammadul Lamin, sama yaay tuddu fatumata bintu tuddé mo muhammadu tek yusufa khadimal Mustafa, tek ci Idrissa yonent yàlla yi teg ci sulayman nga taxaw fe di fenn nan ay ba mu biiral mu biral ñett indil ma sama ñent yoy sama côté yaay sama côté ba indil ma len di ngeen di fenn non Macky Sall dafa dafa mudi Macky Sall amul kenn ku bax Macky Sall mo mudi Macky Sall ñu bon rek la am ay kat ay kat ay kat der non Macky Sall c'est triste pour lui nak Macky Sall yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yërëm Macky Sall yàlla na ko yàlla rocci ci musiga gi mu nekkee ak ñi ko wër nitu safara yi ko wër nit yu lëndëm yi ko wër nit yu bon yi ko wër nit yu lëndëm yi ko wër mais nag ku kuy daanu lu bon rek ngay àndal kuy daanu lu bon rek ngay for kuy daanu ñu bon rek ngay for lépp loo for lu bon la moo amul ku baax kenn mënu wax kenn kuy supporter Macky ku baax na ma ci jox kenn na ma kenn jox benn tur ñoom ñëpp ay fenkat lañ ñoom ñëpp ay mythomane lañ ñoom ñëpp ay soskat lañ ñoom ay trian lañ ñoom ñëpp ay sàcc lañ ñëpp ay sàcc lañ ay fenkat lañ ay trian lañ duñu nit te amuñu amuñu dignité amuñu vergogne duñu nous russes. ñun dañuy focus Ousmane Sonko nena, focus hey guys stay focus non à la diversion non au détournement de l'essentiel stay focus guys stay focus xeex baa ngi de de bu kenn détourné de l'essentiel bu ñu kenn wëlbati suñu bët bu ñu kenn solal ay œillères stay focus le danger est là le perpétuel danger est là devant nous stay focus stay focus guys lu la bett mën la stay focus stay focus guys stay focus ay nit yu amul dignité ñu amal affaire ay vampire assoiffé de sang lañ amal affaire ay nooxóor lañ amal affaire ay dëmm infir laqal lañu lañ amal affair ay nit yu gëmul yàlla yu ragalul yàlla lañ amal affaire ku gëmm dee ku xef dee ku xef balaa ngaa xippi dem yowmal qiyaam ay criminel lañ amal affaire ay assassin lañ amal affaire ay mythomane lañ amal affaire stay focus guys stay focus stay focus sur l'essentiel bu len nangu lu leen bett ndax lu leen bett mën leen dellu leen ci yàlla suñu boroom ngeen ragal yàlla suñu boroom ngeen dénk ko seen bopp te ngeen stay focus sur l'essentiel ngeen xam ni ñoo xam ni bañu ñu dara lañ amal ñu ay ñoo xam ne ay saxu duus lañ ñu mel ni ay ma Madiambal Diagne kenn baaxu ci ci ñoom ay charognard lañu amal affaire ay saxu douce lañu amal affair stay focus guys stay focus maa ngi leen koy wax de stay focus guys stay focus ku xef dee ku xef boo xippee yow mal xiyaam ngay xippee ku nalaw de ku nalaw ci cause yi nga xandoor ci conséquences yi stay focus stay focus stay focus sur l'essentiel bët yi nañ ko xippi teg ko fii fii fii cadre leen bët yi ci Macky Sall cadre bu leen dégg gumba leen nii kii kii kii di ñëw nii Ki dina ñëw ki dinañ ko affronter ki dinañ ko fi jële ki kon concentré wu len concentré wu len te bayyi chaxan bi concentré wu len te bayyi perte sen temps bi concentré wu len sur l'essentiel concentré wu len encore une fois sur l'essentiel concentré wu len encore sur l'essentiel lima len wax xamna ko de ku dee ya perte de ku ñu bett dañ lay ray te ku ya perte ñi ngeen amal affaire ay dëmm lañ ay nooxóor lañ gëmuñu yàlla raguluñu yàlla khalaatuñ yowmal khiyam kon ay yeufeur lañ amal affaire yu bon bon ay nafiqoon lañ amal affaire ay kafiroon lañ amal affaire stay focus nalaw yi sax warul bareti nalaw yi sax warul bareti stay focus guys lol dal la amon ci luma len di wax bu len dara bet concentrez-vous lépp yàqu na jamono ji dara baaxul assemblée baaxul suñu institution yàq nañ lépp yàqu lépp yàqu na lépp yàqu na Sénégal comme guerre lépp lañ yàq ñoom lépp lañ bombardé ay nit yu bon soit Moustapha Diakhaté soit Madiambal Diagne soit euh, Matar Kagoar soit euh, Hélène Gaye génn soit Kaliphone génn soit stay focus guys Stay focused, please. Stay focused, please. Stay focused, please, please. Stay focused. Essayons de libérer nos détenus politiques. Pour l'instant, l'homme moo war a nekk Faisons tout pour vendredi Nous pouvons ci marché Nous ñu libérer nos détenus politiques. C'est le premier combat Le plus lu ñu leen wax jàppale ni diversion la objectif moo fi nañu rayan ba Abdou Karim genn gëy génn bi nañu rayante ba Cheikh Omar Diagne genn kasso bi nañu rayante ba Papito Kara genn kasso bi nañu rayante ba Ousmane Diagne genn kasso bi nañu rayante ba nongo Diop genn kasso bi dañu bëri nañu rayante ba Ami Dia et cetera et cetera dañu bëri une vingtaine genn ci kasso bi comme niñ ko défé pour pop alignan lepp luñ wax lu dul leen du farata mun na ñàkk combat bi mooy nañ fexe libérer nos détenus politiques nañ ci taxaw nañ ko xeex nañ ci dëggal suñu bopp nañ ci jëmmal suñu bopp xeex ba libérer nos détenus politiques luñ leen wax leneen ay caaxaan la luñ leen wax leneen ay diversion la bu leen ko nangu gënuñu leen ci ndey yéen leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi ndax ay fenkat lañ ay soskat lañ ay nit yu bon lañ yu wut ñu lekk yéen leen gën ndax am ngeen dignité té ñom amuñu dignité stay focus fofu la yem à samedi Inch'Allah. opération reub Dem. opération reub Dem. donc ñu préparer le 17 Inch'Allah. lolu samedi la le 17 ni dof ki la guys nañ dem waaye nañ fess dell ci stade bi ma leen ko ñaan guys nañ fees dall ci stade bi nañ support nit doof gis naa patriote yi di ci rey seen bopp ñi ngi jënd billet ñi ngi taxaw ñi ngi koy soutenir loolu mooy góor jàpp ci góor jàllale góor nañ support nit doof nañ jàppale ni doof nañ taxaw nit doof c'est un patriote bu jaay bakkanam bu rayante pour pour l'Afrique pour le Sénégal nañ taxaw Nit Doff nañ ko soutenir ci événement am nit ki sa bés rek nga nañ ko soutenir nañ wane te nañ jàppale nag ñoom Abdou Karim Gueye nañ jàppale ñoom Cheikh Omar Diagne nañ leen taxawu ñooñu dañ leen war a libérer stay focus guys le vingt cinq incha allah comme ni ma koy tëjee taaru rap Galsen le vingt cinq incha allah à bientôt à samedi incha allah one love Jarama. In a mark, bro. Hide. Peace. You end up jam.